signé avec les enseignants du dëkk. 2012 ba léegi gisuñu xëy du tëdd. justice bu tëddee ñaaxanaay du dëkk. prisonnier politique yëpp yaa ko tëgg. wax waxee. wax di wax waxaan loo wax du dëkk. Macron ci kenn ngeen tuité. la télé. la fi presse nationale interview France Télé. 13 mois de déclin day national. c'est ça moo a nag. kii xar nga wala bëy nit nga wala rab boobu nekk dégguloo jooy askan bi yaa doole góor jigéen ñi mooy loolu te nga foog ni dig jigéen ku fi ñu dagg sa loolu xas dara rek sant bi doxul yéen ñi naan ñuy wasin si kaw saret ngay jëndee ak ñoom milliard ay jagaar loxoy loxoy na jóg na jóg na jóg na jóg Seyna fi dégg nga bu réew mi mu rëb soo doy di yomb président milliards yi bëri lañ la dénk. président ah. ak mu ne sa gestion. Macky Sall président. sa góobu sa góobu la déglu. troisième mandat lay laaj de yuut sama gul. xanaa wala nag. non xanaa wala bay. tout le monde tout le monde. nit la wala rak. boobu léegi dégguloo joxe askan wi. xanaa wala nag. Macky. xanaa wala bay. yow yow nit nga wala rak. boobu léegi dégguloo. ayca ayca ayca gars yi loxo yi ñu jóg ñu jóg ñu jóg waaw yeah loxo yi loxo yi loxo yi dafa am lu am solo salaamaaleykum tout le monde ayca ah, ayca ayca jooy askan wi yàtto leen góor jigéen yi biyee ah, biyee doxal ma refrain bi doxal ma refrain bi Sénégal wax stop stop DJ stop stop stop stop stop stop c'est que dama bëgg dama bëgg Macky Sall salaamaaleykum maa ngi jégalu maa ngi nuyu ñëpp dama bëgg ba fu toll ci pare bi xëy na tey dina dégg liñ ba neew xar nga wala ah, la mais kii wax muy ak élection nanu ci bëtan diwti naan na ma koy ajandi joxal ma refrain xar la wala bëy nit la wala rab ñun kenn Sénégal day changé bàyyi force affaire bi mentalité la démb lañ pare tey soo ngay ñëw bi ñuy jug jugagut ñoo ko njëkk siw ñoo ko ëpp fit on n'a pas besoin de la réunion militaire pour ba teewal suñu dëkk dañuy teewal suñu dëkk ci dëkk kenn duñu ko tere o eh, joxaat ma refrain a joxaat ma refrain bi yeah ah dina dama bëgg ngeen jàppaat ci refrain bi xëy na Macky dégg ñu tey xëy tey mu dégg ñu waaw ah ah loo jooy kii xar la wala bay nit la wala rab moo ko léegi dégguloo jooy ah down down down down down yeah ah yeah suufeel armée nationale moo àgg teer ba nga jaaxle ba jaaxle ñoom nga woo sa lépp leer wax waxeet wax di wax waxeet loo wax du dëgg yeah léegi nag dafa am message bu ndaw rek bu bëggoon lancé di wax dañoo damay massawu le peuple sénégalais c'est très important parce que nag vraiment dañuy ñun dañuy génn ci yàlla les gens viennent nous dire non Karim massa ma non ñun yéen la ñuy massa wu yéen le peuple sénégalais ndax au moins man ci kaso ma nekkoon mburu bi boulangerie bi defar mburu ci kaso bi la nekk dina jot seen mburu mais xam naa ni am na ci grand yoo xam ne ñu mën a jot seen mburu parce que ñi ñaa ngi manifester ci am na ñoo xam ne mënuñu yóbbu seen doomu hôpital man damay dem infirmerie que ñi ñaa ngi manifester depuis depuis deux mille vingt et un ba tey Sénégal nekkuñ ci jàmm ñu ngi ci fitna boo xam ne benn nit rek mënuñu ko te à chaque fois dama koy wax di ko waxaat répétition lay nekk rek. Sénégal benn problème la am muy Macky Sall il faut avoir le courage de moo ñu tardel moo ñu sonal moo ñu fitnaal moo ñu damm moo ñu tas Macky Sall nañu dimbali mu bàyyi pouvoir bi mu dem te yàlla tax mu xool nit ñi xool boppam xool Sénégal ñu li ñu liggéey démb ba tey benn nit war ko yàq généraux yi nekk ci gendarmerie armée sénégalaise la police ak institution yooyu mu jàpp mel ni ku yor jàmbu tabaateem di jàmb ka lekkaat rek ñu sikki xam ni Macky Sall day dem bàyyi leen fii ma waxaat ko encore li ñu wax li yëpp répétition la waxoon nañ ko dañ koy répété waat rek te peuple bi dafa taxaw kenn mënu ko freiner kenn mënu ko téye il est le seul président bu gëm ni mën na xeex ak peuple xamoon naa ni gàcce la ci jël donc nag kon ñu gën a taxaw gën a farlu waxu mu tembere tembe amul taxaw dañuy taxaw tembe mu teg affaire ci yoon une date boo xam ne na ko teg léegi balaa le deux parce que le deux moom mënu fi taxaw mënu fi traîner le deux moom à partir de minuit trente bëgg naa muy jël bagage am bi mujj ci mu koy jël yéen sinon dañ dem génne ko pare bi. yee yee sinon dañ dem génne ko pare bi trente minutes laa ko le deux minuit trente minutes mu seey. yaa ngeen jëf. wala boo wees. ñu jox kàddu gi honorable député président Birame Souleye Diop. asalaamaaleykum. asalaamaaleykum yéen détenu politique yéen mbokki détenu politique yéen ñu des ci kaso bi te dañu seetaan ñun ñëpp xam nañu li xew ci réew mi. dañoo wax ni ku tëj na nit tëj nga njabootam yëpp ku tëj góor borom kër tëj nga jabaram ku tëj jigéen tëj nga yaay tëj nga baay tëj nga doom mille huit cent personnes ci kaso bi mooy tëj nga mille huit cent famille ci mbedd mi loolu la nguur gi def teguñu ko ci dëgg teguñu ko ci yoon seetuñu dëgg seetuñu yàlla te li ci ëpp ci ñoom lan lañ leen di tëjee Bassirou Diomaye Faye